nit nay calcul bés penc lu jar a la lu jar a la bés bi nga war a dajeeg yàlla moo tax yonent bi salaa sallam doon ñaan ñaanam boobu itam ne wa jaal xayra ay yawma alqaaka fiihi parce que bés boobu noonu il faut nga dajeeg moom moom bi tabaaraka wa nag dajeeg yàlla dafa mel ni kuy préparé ne mën na dajeeg forodoor yi eh, mën na dajeeg du wala déet xam nga kooku xam na ni muy génne couvre foofu bi muy xew ñun dañ doon génne heure bu ñu neex wala déet mën nga toog a toog a toog a toog ba 9 nga taal sa oto nga ne da dem waaw ah, da dem kaar wala da dem yu mel noonu waaye tey jii nii est-ce nga ko da doon toog ba 9 nga gën sa buntu kër dem ci jumaaja dem jullu ci wala de nek ci jumaaja nek fa nek fa nek fa ba 23 trois mhm. est-ce que ñame nga ko léegi mhm. fi nek ni <laughs> bala huit heures rek nga préparer say bagage yëpp mhm. duggu ci sa biir ne lutax parce que ya ngi préparer ne bés boo dajeeg ñoom du la neex yaa ngi téye ay marchandise yo xamante ne forot la bés boo dajeeg douane yi du neex kon yaa ngi daje gi yàlla indaale foofu noonu ay bakkaar daje ba du neex parce que alal kaafiriina xayru yasirin yàlla nee na bés boobu noonu ci ki wetti woon nee na bés boobu noonu du neex ci moom li góor gi waxoon yàlla nañ ko yàlla feer nee na gis nga ki sàcc bu jàkkaarloog borom timi police lay gis waaye ku deful dara du gis police nit lay gis looy daw yow defoo dara waaye kee nga xamante ne nag moom <laughs> nagu jàmbur ba moo ko yóbbu walla de xam nga pol ba ba mu arrêté oto ba pour ñu yóbbaale ko oto ba taxaw mu dugg ci biir gis <laughs> police yi mu ne ko may leen ma fii <laughs> may leen ma fii loolu lay wax ne may leen ma fii lu tax lool mu ngi léegi nag dajeeg yàlla nit ki war na ko di sooraale bu baax a baax a baax moo tax yàlla ne gis nga ñoom yéeféer yi kaanu nekkoon nañ laa yarjuuna xisaaban yaakaaruñu woon ne ñoom danañ mas a dajeeg borom bi tabaraka wa taala wa kazabu ñu ngi doon weddi bi aayaatinaa samay téere kizaaban weddi gu metti dayo wa kadabu ñu ngay weddi bi aayaatinaa ñama yónni ki zaban weddi bu jéggi dayo parce que bul fàtte ne wa jaalnaahu wa jaalnaaha wabnaha aayatan moo wax yàlla nee na Seydina Isa kéemtaan la woon aayatan comme ni nga xamante ne aaya alif laam mim mu doon aaya kon bi aayaati mën na firi ñi yàlla yónni aaya mën na firi li yàlla wàcce mooy alquran bi boo demee ci gis nga ko ci injil am na leen tuddee gis nga al isaxaat yi mooy seen saar yéenu boo demee ci tawraat itam na nga ko fay fekk yénni aaye ñoom tam tawraat boo ko xoolee dafa xaw mel ni comme alquran par aaye lañ koy jàng ak mu mel ni itam sax même nitu yàlla yi parce que boo demee ci Ahmadou Bamba mu ne baanat li kulli man lahu wilaaya hmm? kawni li xaalikil baraaya ayata kon nitu yàlla sax mooy nit ku baax nit ku sell nit ku yiw mën na dem ba doon aaya masala li nga xamante ne moom la ñuy tuddee environnement masalan dangay gis benn soccet yi naaw nii buñ demee bi ci diggi noor bi dangay gis ñu ñuul ànd ak suuf waye buñu dem demee benn jot ba gantax bi genn fi nga gis le ñu ñu vert gis ñu vert ko jégué bañ ko jégué rek dem nañu ba jël melokanam ki jang alquran guddeeg bëccëg suba ak ngoon toujours mu nekk da fay dama dem be don aya melokanu alquran parce que ndox bu yagge ci euh, safara rek ci wetu safara rek bu boobaa du tuddati ndox lak nga ma lak nga ma ngay wax waxati toyal nga ma moo tax nitu yàlla buy roy ci yonente di roy ci moom mën na dem ba niroog moom moo tax Cheikh Amadou Bamba wax ne moom aaya la yàlla wax ko ci Seydina sax ne moom aaya la te loolu Cheikh Amadou Bamba wax lan la loolu la ñuy tuddee sataxaat nga xamante ne gis nga ko dañuy wax la lay yàlla wax loo lisaanul xaal moo fay wax nekku ne sëñ làmmiñu bopp mooy wax waaye feneen dañuy wax waxe kon wa kazabu bi naa من نفري تيري موي القران وكذب من نفري يوننت وكذب من نفري yonente بروم خم خم na مثلا تاي جي غيساتو ني يوننت masalan بو jii بروم yonente خم ياغي borom xam-xam yaa ngi fi bu mel na ko góor nga xamantene mo ngi ci suñu biir yalla ne la guddal fanam lum la wax ku ko wax kon boo ko ko weddi wa kaddabu yaayatinaa mu ne ñoom dañu weddi woon nitu yàlla yi boroom xam-xam yi gëmuñ leen woon mhm. xam nga kañ lañ gëmoon mhm. woykat yi mhm. caaxaankat yi parce que lu leen woykat wax ñu téye lu mu leen jaay ñu jënd waaye yàlla nag wala nitu yàlla yi liñ leen di wax luñ ko dégg ngay gis koo xamante ne këram musique rek moo fay musique rek lay déglu otoom musique rek lay déglu kon kooku ku mu gën musique boobu noonu am na koo xamante ne bu waree bëre foo nekk ci àdduna bi da ko bët dem fekkee ji ko imma nga dem fa muy bëre ci stade ba wala nga dem seetaani parce que nga ne mooy sa mbër wala de léegi ana nitu yàlla yi ana alquran bi est que jaral na la ko jaralu la ko moo tax yàlla nee na gis nga ñooñu di dugg ci jahannama kazabu dañu weddi bi naa man yàlla li ma fi moom ki zaban weddi ko bi maanaam gémuñ leen gémuñu nitu yàlla yi gémuñu yonente yi gémuñu alquran leneen la ñu gëm waaw bëri na fii nag Sénégal dañ ko wax mu doon lu wér bëri na Sénégal ñoo wax ne ay jullit lañu waaye gémmuñu ko gémuñu ko dafay neex rek ci seen làmmiñ ñu di koy wax nii rek même gis nga buñ la waxee ne maa ngay dem màggali soxlawoon sëñ Tuubaa la muy indi de xam nga lu leen di yóbbu mm. mm-hmm. mm-hmm. bernde ya bari na koo xamante ne la mu lekk keroog masu koo lekk mu ne jébbalu naa ci sëñ Tuubaa mm-hmm. parce que sëñ Tuubaa moo tax mu lekk ko kon kooku ci lekk bi la jébbal wala ci sëñ Tuubaa ci parce que li sëñ Tuubaa wax yépp mu ngi koy moy li sëñ Tuubaa wax ci Masaalikul Jinaan xamu ko sa toppatoo ko yoonam nekku ci waaw yoonam nekku ci boo ko boo bëggee insisté mu ne loolu déedéet man géew ma ko mm-hmm. te pourtant moom mu ne lan murit la noonu lay amee itam ci tiijaan bi noonu lay amee itam ci cadre bi mm-hmm. wa kadabu bi ayatina kizaba mm-hmm. yàlla nag ne wa la shay'in gis nga lépp loo fi gis ahsaynaahu man yàlla maa koy compter di koy dajale kitaaban te dama ko bind enregistré ko Yalla neena li ngeen di def bayuma ko rek man ma xam ko parce que yalla mo xam na lepp bayuma rek man ma xam ko bu yomal kam jote ma di lay netal sama làmmiñ déedéet dama la koy sere ñamu yónni nag ñuy enregistré nak wax nako ko raqibun wa atiidun ki mu ngi ci ndeyjo ki mu ngi ci càmmoñ yalla ak xam nga tay ji ni lego le nga jël Kamera surveillance teg ko sa buntu keur wala sa buntu boutique wala ci sa bir néeg sax ne am sa bir néeg sax ci sa bir néeg da jël caméra def ko bes bo xamone ne ne caméra surveillance mo ngi fi di lay suivre est-ce que doo wëlbati ay doxi budé kay ñew di est-ce dina ñew budé yow ma nga xam yow jabar gi sa jëkkër tegal la caméra surveillance pour xool parce mhm. que fan yee maa ngi koy liir ci benn journal toj na benn kër mhm. benn xale bu góor boo xamante ne mu ngay jàngi Arabie Saoudite gis nga ko misra la waa misra la jabaram daal mhm. moom la wóolu xam naa ay gestes mu gis mu jël caméra surveillance def teg ko fa <laughs> waaye la mu gis mujj na koo metti ndaw si bu xamoon loolu parce que baayam la wa baayam ci boppam li nga def ma koy wuti ci jabaram mm-hmm. xam nga kooku bu ko xamoon ndaw si mm-hmm. ndaw si bu xamoon loolu mm-hmm. bàyyi ji bu xamoon ne caméra baa nga fa est-ce que du changé doxalin kon bu leen ko waxoon dañu changé doxalin boo wax njabaram ne ko teg naa fi caméra surveillée nag loo fi def dinaa ko xam bu boobaa ndaw si dana wolbati doxalin léegi bu changé wul doxalin ni koy tuddee dof yàlla dañu tegal caméra surveillance wax ñu nag dama leen di suivre ki bariwul yërmande ñun dañuy teg caméra surveillance nobbu ko ba kenn du ko gis di lay suivre nag di la koy enregistré bu ñu paree bu dee sàcc la ñu yóbbu ca kaso ba bu fekkee ne dafa rey nit ñu def li ak li ilaaxire waaye li su fekkee ne nag moom ci boppam wax nañu ko moom yàlla ci yërmandeem ne nag yéen a ngi def waaye maa ngi leen di suivre nag caméra yaa ngi nii di leen di xool lu ngeen def rek ma enregistré te ma kiamati danaa leen tegal caméra bi vidéo bi ngeen jàkkaarloo moom di koy xool mu teg ci nag ne du ma la ko tegal yow kese adduna bi yëpp laa koy tegal ñu di koy seetaan yow ma tubla sarair est-ce que yàlla bu bariwul yërmande kon lu ñu defati ku xawi yàlla ñu xawi wala ñoo xawi suñu bopp moo tax nit toujours nay fexe bàyyi xel ne am na ko koy siiwur wa kulla shay'in ahsaynaahu kitaaban boo kabaree di julli yàlla nee na maa ngi xool ca guddi ga ba nga jógee deux heures trois heures yaa xam ngay jóg naa da ngay jàng alquran yàlla nee na maa ngi lay siiwur di la koy enregistré est-ce que cassette boobu nekkul seetaan waaye ba nga jógee di dem ci nagu jàmbur di sàcc ganaaru jàmbur di sàcc téléphone jàmbur di sàcc hmm. oto jàmbur di sàcc hmm. wala de wala yeneen xeetu ñaawteef yi hmm. dem ca baar ba jaar foofu noonu gis nga ko sol lu kenn xamul boo ñëwee solaat la nga <laughs> lu la kenn xàmmeewul est-ce que buñ la ko tegalee yowmal qiyaamati dina la neex du la neex te yàlla nee na man lépp lay enregistré kon nañ bàyyi xel enregistrement yàlla bi nañ bàyyi xel yàlla ni muy chiffré laa tajalilaha ahwana nadirina ilayka ko boroom moo tax mu ne wa kulla shay'in gis nga lépp loo fi gis baax na baaxul rëy na rëyul tuuti na tuutiwul yàlla nee na ahsay nahu maa ngi koy enregistré kitaaban di koy di koy bind bul fàtte nag même caméra yi ak téléphone yii di enregistré yëpp mbind la mbind la tudd digital yëpp mbind la tudd moo tax gis nga boo liiree sa whatsapp mu ne la kuriat mm-hmm. boo defee son wala nga def vidéo mm-hmm. ne ko keneen ci buwaatam mm-hmm. bu ko liiree ba kii bi bu la noonu xaw ma verte lan la lay wax kuriat vidéo kuriat mu ne liir nañ ko wala déet mu nga noonu da nga ne liir nga sama message nga dem ubbi message bi mu nekk vocal <laughs> nekkul écrit yëpp liir la tudd maanaam matari dañuy liir moo tax yàlla tuddee ko kalimatu kitaaban yëpp kiraa la boo ko xoolee nag ni ko borom xam-xam mi waxee nga ñoo ciy liggéey nga xam ne ñaari xaraf la ñaari kii la ñaari ñaari lettre lañ jël mooy gis nga ko zéro un zéro un mu doon lu yéeme si zéro un zéro un yëpp ba jeex zéro un zéro un du passé loolu après léeg mu dugal ay xaraf A B C ba ca F ba bu paree jëlaat zéro un zéro noonu lañ ko yooyu yëpp yëpp noonu lay demee waaw boole diggante lettre ak kii alquran nag indi na ko wala fajr wala yaa lii na ashir والشافع والوتر الشافع والوتر waaw shafee mooy xaraf yi wal moom mooy gis nga ko chiffre noonu la yëpp bindoo tey digital yi ngay gis yëpp téléphone yu sophistiqué camera yi yëpp même ca satellite yee sax noonu la noonu lay bindoo noonu lañ koy bindee gis nga fi mu nekk nii nii ngay enregistré nii mu ngi koy bind caméra maa ngi koy koy bind ci mémoire bi daf ko fay bind bind la 01 01 01. hakada kon moo tax yàlla utiliser kalimatu kitaaban. Mhm. parce que yëpp bind la. waaw wa kulla shay'in lépp ahsaynaahu kitaaban. Mhm. duul ne da ñëw maanaam mu doon téere bii nii ngay lii nii nii nii nii waaye vidéo lay doon bu ñuy bëgg di lire ñëpp jàkkaarloog moom. parce que boobu mooy xamante ne laa yuxaadiru wala kabiratan illa ahsaha def la koy defal en gu mat sëkk nag. xaw nga guddi la xam nga léegoo-léeg nga gis guddi ngay caméra du leer waaye am na caméra yoo xamante ne même ci yenn téléphone yi sax dañ lay indil sax gis nga ko caméra lay lii nga xamante ne bu guddi bi jotee booy caméra dafay leer yàlla camera yam ni ñoo gën a lu mu guddi guddi lu mu lëndëm lëndëm lëndëm xam nga yàlla bay gis melentaan ba na muy tege ay tànkam ci biir guddi ga hmm. yàlla boo am na lu ko réer moo tax dara du wéer bu yowmal qiyaamati léppay teew fi kulla shay'in kulla shay'in ahsaynaahu ahsaynaahu kitaaba moo tax yaay bind téere boobu da ko mos a liir bés penc di laajte nag iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba keroog yow yaay doon mémoire bi yaay doon mémoire bi nga xamante ne yow la teg ci appareil bi ngay liir lépp di ñëw amul dara lu ma sa nëbb la nga ma sa def kérok ba nga juddo be kérok ba ngay faatu lépp ci sa kanam lañ ko tek motax tax maa li haadal kitaab laa yugaadiru saxiirata wala kabir gis nga bés bo baye xel lolu bés bo baye lolu xel ne yàlla toujours mu ngi lay xol dilay gis yene dana la rus pour nga def ko motax ci hadith yent bi ne istahyu min allah haqqan haqqal haya ruf len yàlla lan moy ruf yàlla mo ne fal yaxfati البطن وما هو والرأس مثله وما هو وليذكر الموت والبلا باي الخل لي دوغ سي سبوت باي الخل لي دوغ سي سبير يارام تا فاتلكو دي تا فاتلكو لا تي غناو دي كون موتاخ نيت بس بو باي خل رك بس بو باي خل ني يالا مون كاي سيبو دا نا شاندي دوخالي waye ku faté nak ku faté te nit dafa gaaw a fàtte moom mooy indi nag mu sàggani dugg ci loo xamante ne waru ci dugg yàlla nañ ci yàlla musal nee na fa zuuku ña ca lay waxal de fa zuuku nangeen na na ngeen mos falan nazidakum duma leen yokk illaa lu dul azaban ñu ne baat mi bokk na ca lay gën a métti ci waa safara xam nga ka nekk ci kaso di ñaan ñu gracier ko ñu génn ne ko duñ la gracier duñ la baalal dafay gën a am lu ko metti waa na ma dañuy yaakaar pour yàlla génne leen parce que xam na ne yàlla ko bari yërmande la wanaa daw yaa malik li yaqdi alayna rabbuk qaala innakum maakisuun baat yooyu noonu ñoo gën a métti ci waa safara parce que dañu yaakaaroon ne gis nga 4 avril bu jotee xam nga 4 avril bu jotee da ngay gis ñu bari ñu ci kaso yi dañuy yaakaar 4 avril ñu bari ñuy nekk ci kaso yi dañuy yaakaar ne mën nañ leen mën ñu leen garaase bàyyi leen ñu def parce que <laughs> bari na ci heure boobu na mu di ciy bàyyi ak yu mel noonu wala déet feebar bi xew covid bii nii am nañu bari ñoo xamante ne jëriñu leen parce que dañ leen génne ci kaso dañoo ne kaso yi dafa bari nit boo demee Europe bari na ñoo xamante ne génnee nañ leen kon dañ ci am yaakaar nee na waa safara tam dañuy am yaakaar pour génn fa yàlla tontu si ne falan nazidakum du leen yokkal illaa lu dul azaban mbugal mu gën a tar yàlla yàlla musal ci mbugal mooy li nga xamante ne mooy information lay xew ca biir safara nekkul lu rëy war nañ ko xam wala waruñ ko xam ndax buñ ko xamee mën nañ moo tandiku balaa ñu ciy daanu mu ne nag innal muttaqin mu jóge ci nag mooy ñi beew ñi nga xamante ne dañu yaradeku bàyyi yoonu yàlla weddi yàlla ñëw nag ci ñi nga xamante ne al muttaqina mooy ñi yaru mooy ñi yaru mooy ñi ragal yàlla mooy ñi yem innal muttaqin inna lil muttaqin nee na ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla mafaadan béréb bu texe ismul makaan la mafaadan béréb bu texe béréb bu texe boobu noonu moom la ñuy tuddee aljanna waaye yàlla def ñu jox ay melokaanam fii parce que information la soxla li ñu soxla ci mbir mi mooy information mooy tut soxlawuñu tur bi kese bu nañu aljana yem fa kon bu boobaa du leeragu waaye lan la njëkk a joxe ci melokaanu aljana mu ne mafaasan mooy këru texe këru texe mooy foo xamante ne boromam mucc na mm-hmm. te dañu wax ne asalaamatu ihda alganima tey mm-hmm. dañuy wax ne tey jii boo demee xeex yi ba mucc si ànd ak sa bakkan ñibbi si wa mm-hmm. loolu ci jàmm la bokk wala de dooy gis mag ñi ku dem tukki ñëw ah man de li ma dox yoon sottiwul mu ne ah comme ñëw nga rek baax na <laughs> ñibbisi bi rek jàmm la parce que mënoon nga dem ñàkkaa ñibbisi bëriwul ko dem wuti soxla te ñibbisiwu moo tax mu tuddee ne mafaasan këru texe këru mucc mu ne kër googu nag xadaa ika danga fa fekk ay tool tool yoo xamante ne tool yu naat lañu aljanna wa anaban tool yoo xamante ne itam dafa ame ay doom maanaa dafa am ay meññanteef léegoo-léeg nga gis tool boo xamante ne walla garab goo xamante ne duy am meññanteef masalan garab bu nebe da dina am doom yu ñuy lekk doom yooyu nag baax na garab la ba léegi xox yooyu noonu muy kii xam nga dafay wow noonu moom ba léegi garab la ba léegi dañuy wax ne matière bi nekk sa ci xob yi ak matière bi nekk ci kii bi boo ko dajalee ci doom yi foofu la gën a bëri maanaam lii lii xas yi di faj lii xob yi di faj nee na xox yo xoxam yu woow yooyu noonu nga duñ koy faral di dem ut xale yi di koy dem wuti comme ni ñu utee mango voilà mu ngi dafa wex xat voilà xox boobu noonu voilà mu ngi noonu dafa wex xat waaye ñu ne bo moom mooy garab bi na waaw garab garab garab garab voilà mu garab garab garab garab bu baax la alhamdulilah voilà dafa weex xat waaye garab la nag garab garab la mono hakada pour woon la ne garab la boo xam ne dafay naat waaye amul doom bu neex boo xamante ne dañ ko dem aji ji garabu xotti bute dafay màgg gudd ci kaw waaye xale du ñuy faral di dem uti foofu ay doom yu ñu lekk comme mango bu ne aljanna nag amu fa xam nga la fa am garab boo fa gis am na meññanteef yu neex hadaika wa anaaban dafa am ay meññanteef yoo xamante ne neex la yemu fa nga gis aljanna la mu tudd foofu moom mooy raisin fini parce que raisin bokk na ci ñam yi nga xamante ne ñam yi gën a baax mhm. bokk itam ci ñam yi gën a ci aduna bi mhm. boo buggee lekk mën na lekk boo buggee naan itam mën na naa xam nga dañ koy def ji hmm. ndax itam moom lañ def léegi rek sànga moom la ñuy defaree itam bineegar yi raisin am na ci bu weex eh, naka bu verte bu hmm. verte lañ koy tuddee ñoom hmm. bu verte lañ koy tuddee am na ci bu ñuul am na ci bu xonq bi waaw am na bu ñuul bi am na bu xonq bi am na bu verte bi verte verte bu kii la nag maanaam verte waaye dafa xaw a waaw verte clair la waaw da ngeen koy gis yaa ngi nga xamante bu la neexee nga nal ko mu doon ndox mu doon jus bu la neexee nga bàyyi ko mu doon <laughs> te taxiduna minhu sakaraat wala de ni ko yàlla waxee foofu wa riskan xasana yàlla ko wax wa riskan xasana la ko yàlla tudde kon mu mel ni bokk na ci ñam yi nga xamante ne ci àdduna nit dafa bëgg te itam dafa baax te itam dafa neex yaa ngi te boo ko seetloo maanaam xawala ni roog mango mango dafay am xoox kon xoox bi am na espace bu mu ciy jël ci doom waaye boo xoolee raisin am na ci yoo xamante ne amul xoox am na ci nag yu am xoox xoox yu ndaw yooyu noonu xoox yu ndaw noonu mën nga booleek moom lekk koog moom <laughs> mu dem maanaam mënulaa gêne waaye tey jii ni boo doon lekk mango il faut nga séparer xoox teg ko fee wala de mm-hmm. bu fekkee ne gis nga ko li ñuy tuddee il faut nga dindi der bi moom amul xox bu xamante ne mën na laa gêner boo koy lekk waaye nag der bi der bi nekk ci kaw moo tax nga gis ñu di koy xolli ñi xamul pom rek ñoo ñoo ko dul xolli ñi nga xamante ne miiruñu pom waaye pom mbuus bi nekk ci kaw boo ko lekkee da am problème ci biir parce que du gaaw a seegi du gaaw a rees dafa indi problème ci biir moo tax dañ koy dañ koy xolli mm. waaye bu fekkee résin la jarul amul dër boo xamante ne boo ko lekkee am problème mm-hmm. amul xox boo xamante ne yaa ngi koy lekk di wattandiku moom raisin moo tax yàlla tuddee ko noonu mm-hmm. yonent bi salaa nee na ñamu aljanna yi mm-hmm. amul xox gis nga suñu mango yii am nañu àllaaxira ca aljanna waaye yooyu noonu amuñu xoox parce que yi pour lan la pour jël dem jiwaat ko yàlla moo ñuy dencal rek pour réserve comme bëgg nga bii nii demal jël bee nga ji ko mhm. wala de bàyyi programme bi mu continuer sunnatallahi walla te jël sunnatallahi tabdil mhm. wala de parce que bu ngeen ko defule mango du amati de mhm. bu ngeen jiyatul mango yi mango yi dañuy jeex waaw wala de nga dem ci ndarka su xoox bi xanaa nga làkk ko de <laughs> waaye nekkul ne xoox bi yëpp ngay lekk maanaam ñami ba ñami jeex daal dana am loo ci génnee am loo ci jël waaw ñami ba ñami jeex raisin rek mooy bi nga xamante ne. Mhm. mën nga ko lekkandoor yëpp ak xob beeg xox yëpp lekkandoor ko. Mhm. ñamu aljanna noonu lañ mel moo tax yàlla tudd fii ay nam. Mhm. aljanna. mango ya fa nekk amuñu xox. parce que yàlla soxlaatul nga dem ji mango. ñun ñoo soxla dem ji mango pour mu génn si waaye yàlla inna amru <laughs> yàlla ne acca toolu mango yi mango yi di kii rek. waaye fii ci àdduna nag yàlla def ñëwaat acca ji leen mango yi. ñu war a jël xox ba nag mm. boo lekkee génnee xox bi yàlla jël ko wexal ko xam nga li tax mu wexal ko mm. pour bu leen ko lekk walla mm. de pour ñu dem jël def naka dem ji ko ñu man ci am yeneen ak yeneen ak yeneen mm-hmm. loolu la ci yàlla soxla waa wala de benn xox la ñuy lekk ci ñam yi ñu xam fii nii mooy ba mooy ndarkasu te xoolal ni ko yàlla protégé balaa nga ciy jot laa laajal jigéen ñi seen loxo yi loxo yëpp a yàqu gas kese la waaw ah, wala de balaa nga ciy pare weer ko fee jël ko xooj ko fee lakk ko ba dóor ba weeraat ko wax la lépp mi ngay sonni te bu dee doom bi nga xamante ne moom dafa pare pour lekk rek boo ñëwee rek lekk aljana nag ñam yaa fa nekk dañu mel ni comme raisin moo tax yàlla tudd bi xadaaiqa wa anaaban mangu ya foofu dañu mel ni comme raisin saa ndarkasu yi foofu mel ni comme raisin day jël saalu ndarkasu naan da koy dem xooji wala ngay toj da ngay yee rek mu ngi gis boo demee ci gis nga ko nete nete garabu nete yi moom itam gis nga ko dafa am ay xob aljana amul lool boo demee gis nga ko dimb boo demee gis nga ko bi ñuy tuddee ditax tax di tax defe naa ditax sax xox bi ak ñam bi bu gën a bëri xox bi moo gën a bëri wala de xox bi moo gën a bëri yowmal qiyaamati nag boo fa demee ba ca aljana gis fa di tax dafay mel ni comme maanaa du am xoox da ngay jël rek gis nga ko lekk rek lekk rek mu neex fahimta loolu moo tax yàlla wax ne xadaayika wa anaban waaye namu ci comme raisin bii kese kese kese waaye ñamu aljanna ya lay nekk ci biir aljanna dafay mel ni comme comme raisin muy benn wakawaay ba ne na ak ay xale yu jigéen atraban yoo xamante ne waaw ay xale yu jigéen yu yu ndaw lañu arba indi na ko sax oro bana atraban kawaay ba mooy xale bu jigéen xale bu jigéen bu am ay ween tirbu buñ la ko waxee moom mooy koo xamante ne magul torop waaye nekkul xale bu ndaw bu am ay juróom-ñaari at wala fukki at yooyu mm-hmm. moom mooy xale bu jigéen bu matee rek mm-hmm. moo tax ñuy wax naan gis nga ko ñaar fukki juróom dema dem ba ci fanweer mm-hmm. xale yu jigéen ñi ci fekkee ne xale yu góor yi mu ne am gis nga ko waaw la ci fanweer di ñeent fukki at waa aljanna yi moo ba mu ñëwee ci yonente bi ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma dugg aljanna yonent bi ne ko ah foofu meer dafa dugg de waaw maanaam di koy tooñ sallallahu alayhi wa sallam dañu wax nag yonent bi léegi ko nekk dina doon kaf ñàkkaa kaf baaxul wala de ak da yonent bi sallallahu alayhi ne ko ah meer mu ne ko mu ne ko aljana nag meer dafa dugg meer ba dem di jooy ñu ne ko xanaa lan la mu ne ah man de dama ñëw wax <laughs> yonent bi ne ko ñaan ma dugg aljana mu ne ñun passé nañ bu ko xamoon ma dee ba may nekk xale ñu ñëw ci yonent bi wax ko ko eh mu ne woo leen eh, ba mu ngay jooy jooy yu métti mu ne woo leen mu ñëw mu ne ko déet maanaam waxil la rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi jël moom moo ko wax de mu ne dinaa kaf waaye du ma fen sallallahu alayhi wa sallam moo ko dafa dem ba ñëwoon ne eh yonent bi ah léegi-léegi da ngay kaf nag kaf bu kii mu ne la waaye nag du ma wax lu dul dëgg xëy na andi laa ak wala déet moo tax di kaf ak xale bi ne bukki baa ngi ñëw yaa ngi ci yére mm. kaf kaf boobu baaxul boobu fel wala de mm. waaw yenente bi na doon waxin moo tax mag ñi bu doon na xale bi ne ko indi kaan mm. ne gara loolu waxin la ñu maanaam aljanna mairie duñ fa dugg parce que képp ku faatu ci jigéen ñi bu demee ba yomal kaam dañ koy delloo mu doon xale bu ndaw xale bu ndaw lañ koy delloo pour mën a dugg aljanna laa ah, mu ne ko waroon nga teel a wax nag yaa rasulallah mu ne ko loolu moo ci njëriñ mu ne ko kon dinaa delluwaat nekk ni xale mu ne ko waaw waaw mm-hmm. nga delluwaat nekk xale bu ndaw amaat sa taar ni nga meloon mm-hmm. macha allah taar bu ko gën a rafet kon moo tax yàlla tuddee wa kawaay ba mm-hmm. kawaay ba mooy ay xale yu jigéen léegoo-léegi nag ñun dañuy foog ne kawaay ba yii mooy xuurul ayni ya déedéet suñu soxna yii la suñu soxna yi nekk fii ci àdduna ñoom ñooy gën a taaru sa xuurul ayni bu baax sax jigéen ñi dañ mas a ñëw ci yonante bi moo tax li yàlla di tudd xuurul ay ni ci Alxuraan bariwul xuurul ay ni yooyu eh, pour célibataire yi sali sali célibataire <laughs> pour célibataire <laughs> jàng Alxuraan di jox <laughs> yàllaa leen di yërëm rek ni acca jël leen ñu ndaw ñi parce que jigéen dañ ñëwoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne waa ñun de dañu am problème yéen def ne leen lan la mu ne ñu ngi fii di togg di foot di jur di oor di julli di aj di génne azaka di def lépp yow mal amati jot ñu dugg aljana fekk fa xóorul ay ni yu rafet yooyu mu ne danañ nangu suñu jëkkër yi ci suñu loxo parce que ñoo gën a xam góor góor ñu lu rafet rek la ñu waaw rafet rek la ñu danañ ñu fa bàyyi dem ci xóorul ay ni kon ñu nekk fii di am problème demaat yomal ki amaat fa problème yéen tamit ne kaay leen nag mm-hmm. gis ngeen naaj bi ni mu dàqee weer bi ñu ne waaw naaj bi ni mu dàqee weer bi ni ko gën a leer ñu ne waaw mm-hmm. mu a yéen jigéen ñi dugg ca aljanna ci yéen mm-hmm. noonu la ñuy dàqee xuurul ay nii kon duñ seen morom moo tax yàlla bu wax ne azwaajun mutahara azwaajun mutahara azwaajun mutahara moom lay gën a tudd waaye wurulaay nii ñaar ba ñett bari luñ ko parce que ñoom deuxième position lañ waaw ñoom ñeeloon ñee ñoo leen dàq waaw ñoom kañ ci ñi ñu baax waaw ñoom wurulaay nii mooy ñu ñàkk sens yi waaw loolu waxuma ko de yente moo ko wax de alayhi salaatu wasalaam moom mooy célibataire waaw ñooñu la yàlla di yërëm rek léegi nag boo am boo nekkee célibataire amuloo jabar ba dem yombal xiyaama ba gars yi tey seen jabar yi ba romb la danga nga ricc parce que mënatoo am foofu ci ñooñu ñooñu am nañ dem nañ ci seen jëkkër yi léegi da ñan ñan ngay am ci xóoru ay ni nga xamante ne seen taar tolluwul noonu waaw ñoo rafetuñ bu baax akada kon ña ca yàlla di njëkk a tudd fii kawaaye ba moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu soxna yi jóge fii xoolal suñu mairie yi ama tooñ ko maamu soo dee na ko yàlla yërëm mm-hmm. xoolal ni mu màggee woon kuñ ko waxee ne ko kaay kaay ma may la ko mm-hmm. wala de waaye da gis benn maire boo xam ne boo xoolee photo ba muy doon xale mm-hmm. ma ne ah kon nii woon ah, te wax na dëgg xoolal maire yi seen karaw yi na ñuy dàggee